correctionnel bu tribunal bu Dakar joxe na dogalam ci coow lu dox ci diggante Bah Diakhaté Imam Ndaw ak procureur de la République ñeel joxe ay xibaar yu dul dëgg wala tegi tuuma nit ki nga xam ne ni yor na yenn ci sañ-sañ yu ñu jagleel njiitu réewum Sénégal mu di Ousmane Sonko mi di ilimaanu jëwriñ tribunal nee na que am na ay ay xibaar yu Bah Diakhaté lawal nee na tur euh, euh, xibaar yooyu la laluwul ci dëgg looloo tax moom Ahmed Tidiane ndaw ñu daan leen kenn ku ci nekk ñetti weer ma ne nag ñetti weer du lu tuuti da ngay ànd ah lii de tribunal de wàññi na mbir mi oy oyofal na ko woyoful. waaye lu jëm ci wàllum teg ci deru ki nga xam ne nii am na yenn ci sañ-sañ yu ñu jox njiitu réewum Sénégal tribunal bi da leen cee daal di bàyyi. tribunal nee na Ousmane Sonko yorul mandargay président de la République donte ne nag premier ministre la premier ministre la na yem ci premier ministre loolu la ko tribunal wax. di ko wax ne ku nekk xam sa place place am mooy premier ministre. am na solo premier ministre lu rëy la lu am solo la waaye premier ministre la mooy chef du gouvernement du président de la république. Amadou Sall ak ñooñam ñi nga xam ne ni ñoom ñooy layool Bah Diakhaté ak Imam Ndao fas new ñoo des fii ci mbir mi la. waaye ma ni suñ ne dafa lawal ay xibaar may wax ne dinañu jaaxal ñun avocat yi moo tax ñuy def appel. dinañu ñu fas yéene def appel suñu waxtaan waxtaanee ak suñuy client ba pare parce que suñuy client ñoo ñuy wax def leen wala bu leen def ñun yaakaar nañu war nañ ko def mais dinañ ci waxtaan ba ñoom ñu dëggal ko. procureur mi nga xam ne ni moom moo nekk maître des poursuites ci bile mbir moom mi la sax moom moo wóolu woon ñaari ñile te sàkk woon ngir ñu tëj leen juróom benn weeri kaso ak ndàmpaayu ñaar fukki junni waaye gannaaw bu mu sàkkoo loolu. diir gi nga xam ne ni moom la bëggoon ñu tëj leen dañ koo daal di xaaj waaye nàmpaay gi chambre correctionnelle bu tribunal hors classe bu Dakar da ko daal di topp